ginnaaw bi mu génnee fan yi ñu génn moom Penda bu Waly ñi gën koo xam ci yaayu bos yëkkati woon ay kàddu leeral di xamal askanu Sénégal ne nekkul moo doon yaayu Boss réellement mu jur fi coow tax ñu bëri dal ci kaw bos di ko wax lu nekk ak di ko dëkkal foo xam ne sax dëkku fa moom Penda bu Waly mu génnaat ni ki tey jële yëkkati yeneen kàddu dinaa ci ñëw waaye laataa loolu dama leen di wax ngeen abonné fii ci Timtop Cas 221 ndax lépp luy cas actualité xew ci réew mi fii lañ koy daal di traité ba mat sëkk kon bu leen fàttee di abonné mais à chaque fois dañuy attaqué ki nga xamante ne moo di bos mais cette fois ci nag Penda la ñuy ndax la fois passée génnoon na leeral mais bu dee leeral moo ko tax a jug wax na ne du yaay bos mu jur coow ndax dañu ne nit ki boo dee am fuy metti boo ko bësee mu metti bul fu bësaat ndax yow nee nga doo yaayu mu jur coow tax ku nekk di wax dara bës pour man jarul ngay génnaat ak defaat ay interview même bu fekkee sit yi ñoo la woo sax pour man waroon nga leen wax ne li may leeral leeral naa ko mais nag am sax ñuy wax ni est que nekkut Penda dafa def li nga xam ne moo di jaloux ndax jaloux lañ ko mën a tuddee ndax day vantew di di à chaque fois di expliquer ay mettitam te xam na ni ñoom ñaar ay mbokk lañ mbokk bi mbokk bu rafet la li muy def jàpp nañu bu ko continuer tey ji mbokk mi dina jur coow te boobaa jaru ko bës jaru ko alali àddina jaru ko moom ak bos amuñu problème comme ni mu ko waxee kon jarul muy génn à chaque fois du ma yaayu bos du ma yaayu bos li tax na nit ñi naan Penda dafa jaloux parce que comme ni muy yeex nii di métti lu fois mais na xam ne ne bu fekkee jaloux la lu am la na xam ne ne jabar munul mbokk ak keneen ndax nit ki ak nit sax dañuy ànd suba ngoon guddi bëccëg ku góor ki am jabar ñoom ñaar seen ànd du demeeti noonu wala sax jot bi moo dul la ko may kon foog ñi am compréhension si yenn yi bu dee it moom lu waroon leeral la leeral na ko benn yoon na éviter plateau yi na éviter site internet ndax parfois moo lay wax loolu loo xamante ne ëllëg dina la dugal ci guuta am na ku ko buggoon takk kooku ñëw na takk ko bu dee loolu ko met tamit na comme ni nga ko waxee ku gëm suñu borom la na ànd ak gëm-gëm xam ne que suñu borom moom mi indiwoon kooku mën na indiwaat keneen jigéen la te dañu ne taaru jigéen sëy la amul benn bët boo xamante ne moom lañ koy xoolee ni mu mel ñun noonu lañ mel ni ko suñu borom li suñu borom def si moom ñu moom lañ def si moom suñu borom nag mooy xool jaamam ku ci nekk mu tracel ko li nga xamante ne moom moo di dundam bu kenn xeeb kenn ndax kenn bindul sa bopp encore fois ñu ngi encouragé bu baax ki nga xamante ne moo di pend na gën a fas jom liggéey bos tamit di ko ñaanal suñu borom gën koo bàyyi ak soxnam si nga xamante ne moom la nekkal jamono bile jaa jëf di leen jox dig daje ba beneen yoon.